ku yëngatu nga dóor ku yëngatu nga tëj loolu la jublu ci mbir mi loolu nag dañ ko ko tul nangul duñ ko ko nangul de parce que ñëpp gis nañ li xew mais tekkiwul it nii nit ñi dañuy banque seen yoxo di ko seetaan muy def lu ko neex moo tax ma wax ni je lance un appel ferme et solennel à tous les Sénégalais ñoom ñi di def li ñuy def nii quelques dizaines lañu quelques dizaines lañu bu leen foog ni ay nit yu bëri lañu ñun ñuy ay milliers voire des millions na ñëpp organiser wu man wax naa leen ko dinaa leen ko waxaat duma koo xam ne damay toog ñu mbéj ma ci eh, ci lexu lexu càmmoñ ma tàllal lexu ndeyjoor ne dooraatal wër ci tele yi di saaga di xaste ça passe encore waaye dóor moom dóor a koy faj bañu ma ku ma ne ay day yee na wala dafa violent parce que Sénégal xamul ku riposte sénégalais xamul ku riposte de xamul ku dóor day dóor ñëpp di gis ñëpp a ngi de tekk nag ñëpp laa wax amul exception waaye ku jógoon riposte ñëpp taxaw nag di wax ndax lii xew nii yàlla xam na ni bu doon Pastef moo def tournée ñu attaqué ko sax mu défendre tey nga gis nuñ koy traité. les nervis de Ousmane Sonko def nañu lii gaañ nañu kële dóor nañu kii loolu mooy Sénégal loolu nag su dee ci nii la war a demee ragaluma ku ma ko jiiñ waaye du ma ànd ak kenn di la digal demal joxe sa bopp ñu duma la du ànd ak kenn di la digal demal ñu rey la loolu duma ko digal kenn les forces de défense et de sécurité nañu def seen liggéey buñ ko mënut nañu maandu ci mbir mi ngi la waay bu ñu dem di ànd ak ñoom di sot nañ ci maandu ndax buñ ci maandu woon benn fan rek benn fan ñoom ak opposition kese ñoom ak askanu Sénégal kese benn demi matin rek mbir mi jeex kon li may wax sénégalais yi en tout cas ñi ma àndal ak ñi sama sympathisant ak ñi bëgg seen bopp bëgg seen réew kenn ku ne na nga organiser wu nag préparer sa kaaraange bu leen attaqué kenn nag bu leen dóor kenn bu leen saaga kenn waaye ku leen song na ngeen jël seen matuwaay assure seen sécurité ba mu mat sëkk ku leen dóor na ngeen jël seen matuwaay na mu ko defee na ko defee noona parce que loolu rek mooy solution bi amul beneen solution Macky Sall su dee moom rek ak ñi mu àndal xam na ni ëppul doole nit ñi fii ci réew mi. il sont une infime minorité sociologique li xew mois de mars waree na ko ñoom ñëpp dañoo demoon dugg ci sous-sol yi nëbbatu ji waaye bu dee yaakaar na ni ci lii la mun a jaare pour terroriser le sénégalais nax na boppam man Ousmane Sonko maa assumé sama responsabilité woote ne na ñëpp organiser wu ci suuf ba ci kaw ba kuñ fi dóor na nga fayu parce que xamante na ñag ci réew mi la ñu dëkk te devant tout le peuple sénégalais